إذ ناديته بيا ولي أيا سمني لو هند ولي إبليس إذ ناديته بيا ولي الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين sayyidina wa mawlana muhammadin al-makin wa ala alihi wa sahbihi al-ghurri al-mayamin wa man tabi'ahum bi imanin wa islamin ila yawmi ddin ayyuha al-ikhwatu al-mu'minun usikum wa nafsi bi taqwallahi ta'ala mbokk yi ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax ne ajjuma lu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam baax na fu ne waaye di ko def lu bare bare bare te lu yomb la te dana tax doo wax lu war wax gannaaw loolu suñu borom subhanahu wa moo bind doomi aadama waaye bindaale ci moom bëgg ak moomeel doomi aadama it ku xër la ci alal bëgg alal loolu suñu borom moo ko bind doomi aadama ku xër la itam bu amee alal di ko wattu waaye ku xër la ci lu mu am xeeb ko loolu la yonent bi ne doomi aadama bu amoon ñaari xur xuri alal buñ ko waxoon ko yaa moom ndar moom moom moom kawlax lépp la fa alal yaa ko moomal du tee naan su ma ci boole woon ndakaar loolu la loolu la yàlla bind doon aadama lu mu am rek day bëgg mu dale ko waaye yàlla nee na dana dana jéggal ku tuub ndax loolu bëgg googu ak noonu mu demee dafay mën naa yóbbi nit ki ci loo xam ne waru ko def loolu nag buñ ko jubbantiwut teg ko ci aw yoon mën naa xëcc waa ji ba mu def loo xam ne ñaari mbir la koy jural te benn amu ci solo mooy benn buy wut alal mu du ko wuute wuutiin woo xam ne du du ko teg fa ko yàlla teg da koy defee daal lu ko neexee li naan taxanum guddi day day dajale rek nu mu amee baax na nu mu amee baax na te loolu amut solo ndax suñu borom subhaanahu wa taala dafa bokk ci li nga xam ne euh, alal dañ koy laaj nit ki fu mu ko jëlee boo boo tontoo loolu ëllëg ba noppi ñu ne foo ko def kon kuy bàyyi xel loolu yaakaar naa doo taxawee nu la neex doo wuute lu la neex kon di di bu fekkee bëgg alal daa yóbbu nit ki ci muy wuute alal nu ko neexee rek loolu amalu ko njariñ àdduna amalu ko njariñ alaaxira te bu teyoon sax dana ci jot meneen mbir mi mooy mi koy jural te amalu njariñ mooy koo xam ne fu mu toll day fër-fëri du dal ndax xam lu mu am lu mu bari bari bari na ñoo am ñu am alal lañu am alal lañ waaye foo leen fekk daanaka mën nañoo di xuloo ci ñaar fukk wala téeméer wala ñaar téeméer te fekk waa xam ne amul dara waaye fi ne lu waay xëccoog moom bàyyi ko moom doy loolu ah loolu lu ci mën a musal nit ki rek moo yonent bi alayhi salaatu salaam waxal nañ ko mooy doylu doylu di jikko ju am solo moo tax jikkoo te suñ borom subhanahu wa taala ne yonent bi moo wax ne koo xam ne daal àdduna mooy itteem nga xam ne koo xam ne daanaka moom boo ko newoon itte ji ko gën a itteel mooy àdduna kese nee na suñu borom day taqal day teqale ay biram maanaam dara du dajaloo mën naa am àdduna rek waaye du ko jariñ dara te fu mu toll lu mu am am day mel ni ku ñàkk la nga xam loolu suñ borom a koy def koo xam ne daal buñ ko newoon li leen gën a itteel ci àdduna mooy am àdduna kese suñu borom day def ak ñàkk ci xolam. te day tàqale mbiram te àdduna kenn mënu cee am lu la yàlla dogalul ci yow lu tax mu am lu mu ko yàlla dogalul ci moom ki yàlla bind ci moom ay xaalis faaw mu am bu liggéeyut yi nga fekk waa joo xam ne daanaka moom mën a yem ak tàyyeel xel ma baaxut te mu am alal lu mu jeex la gis waa joo xam ne mu jàmbaare da jaaxal ndax suñ borom bind ci bind ci moom alal waaye nee na koo xam ne nag alaaxira yitteelu suñu borom subhaanahu wa day dajale ay mbiram. te it def doylu ci xolam te itam àdduna da koy dikkal donte bëggu kon loolu ci jàngate lu bare bare la euh, kon nag balaa yi nag ñu xam ne euh, doylu du tax nit ki war a liggéey liggéeyu bëgguñu léegi ko noonu nit koo xam dañ ne daa doylu ba tax euh, du liggéey la mu war a liggéey nit daa war di liggéey bu baax a baax a baax a baax waaye nag jaar ko fa mu ko war a jaar waaye lu ko yàlla jox nag mu xam lii la ko yàlla jox loolu loolu mooy mooy mooy wax ci mooy nit ki daa war di liggéey di góorgóorlu waaye lu ko ci yàlla jox mu xam ne li la ko yàlla jox nee na li nangoo sonn maywut alal waaye day dindi tuuma boo defee li nga war a def lu la yàlla jox rek ñu xam ne ah dëgg dëgg di daa yurut waaye kii moom nangu naa sonn waaw euh, Seydina Omar radiyallahu anhu yonent bi alayhi salaatu wasalaam mas na koy jox alal mas na koy jox alal mu ne ko jox ko ku ma gën a ku ma ku ma ko gën a aajowoo mu ne ko buñ la joxatee loo xam ne laajoo ko laajoo ko jëlal ndax yàllaa la ko jox luñ la joxut nag bàyyi ko waaw kon nit lu ko dikkal rek nga xam ne laaju ko defut eh, kii yi na xam ne yàllaa ko jox luñ la jox te laajoo ko yàllaa ko jox bu fekkee jaar nañ fañ war a jaar bu dee njariñul eh, lu bari ay njariñ la moom doylu yonent bi aleyhi salaatu salaam nee na woon bari xaalis bari alal bariloo moom doonut koom koom dëgg mooy ku doylu ku mooy koom ndax ki doylu fi ne mën naa bañ yor dara waaye day doylu li yor da koy doy nee na woon texe na ki nga xam ne eh, dafa doon ab jullit ba noppi am lu ko doy maanaam daal am loo xam ne xëy na du tàllal kenn loxo te la ko yàlla jox mu doy ku doylu daal kenn ëppatu la alal yonent bi aleyhi salaatu salaam waxoon na ne ku xëy ku xëy am wér-gu-yaram maanaam am dund bis bis bi nga xam ne yow leer na am nga reer ndekki ak sa njaboot yàlla boole la ak soxna soo xam ne bañoo ko nee na daanaka àddunaa ngi noonu maanaam yàlla dajale na la àdduna wér-gu-yaram nga xëy rek wér mu leer na tey moom am nga wér-gu-yaram ah am nga loo xam ne am tey jii mën nga cee dund ndax ëllëg ñëwagut ñun suñu jafe-jafe yëpp mooy dañuy waajal ëllëg te ëllëg ñëwagul ma sa ko waajal nag waaye daal tey la àdduna la weesu weesu na jeex li ñëwagul kenn laajal gulub ndax ak seegu waragu li la war mooy tey bu tey xesee jag rek tuwaarkal la te àdduna yëpp tey la benkat nit ki tey dong mooy àdduna ndax la weesu weesu na li ñëwagul xamu ko ci dara ñun ñëpp ci bokk yam kon tey mooy àdduna ku xëy nag wér ndax am na ñoo xam ne wér gi yaram rek moo leen téye dox dem waaj julli lépp nangu kooku war ngaa sant yàlla bu baax a baax a baax xam ne yàlla may na la àdduna ak li ci biiram boo ko xam ne xam ne tey jii doo tàllal loxo kenn am nga loo loo loo loo ndékkee loo añee àdduna ak li ci biir mu sa loxo ndax ñëpp la benn borom alal waxoon nee na àdduna li nga ci lekk wala nga naan ko wala nga sol ko li ci des lépp ko ëppati ko gënta baaxi nopp gënu ko baaxi ba ëppale ko ci ndax xool ak gis rek nga ci am gis ab dégg borom alal li ñuy bari bari bari alal bu baax la ñu ñëpp a ngi koy ñaan waaye lu mu bari bari bari lu li lim ci jariñu xanaa am naa rek lay wax ak yaa moom nangam yaa moom nangam waaye lañ cay jariñu da nga ci gis ko ca gën a la ca gën a jariñu te liggéeyu ca dara kon nag néew nag kenn bu mu liggéeyee kenn bu mu fàggul ak njabootam bu kenn fàggul ndax loolu lépp lu am solo waaye yéene ji am solo te bañ koo bañ a bañ mu bañ laa yóbbu ci loo xam ne da ëllëg da lay indi ay jafe-jafe liy dimbali nag ci doylu doylu lu mat a bàyyi xel li ciy dimbali nit ki mooy sooy xool lu baax del xool ku la gën ku la tane doomu aadama dangay xool ku la tane fuuf nga di ko roy boobaa da gën a loo góor-góorlu da nga ko xeeb ci ci ci lu baax waaye sooy xool alal nag da ngay xool ñi nga tane te bul xool ñi la tane ndax fi ñu nii am na ñoo xam ne daanaka yàlla may na leen lu ne waaye duñ doy lu ba kër ñuy faatu ndax saa su ne ñu ngi xool rek kañ lay bokk ci milliardaires yi <laughs> réew mi te moo ne de ñi nga tane ak a bari am na ñoo xam ne tey ji buñ amoon reer tey añ tey ndékki tey sant yàlla bu baax yow nga am ko am ñoo xam ne wér-gu-yaram lañ ne taal am ñoo xam ne mënuñoo dox am ñoo xam ne am na ñoo xam ne yow yàlla may la loolu lépp te ba tey ngay jàmbat loolu yaakaar naa ne kuy xalaat doo defee kon yonent bi nee na woon boo xoolee ñi la tane sëggal na xool ñi nga tane yow foo ko defee rek dana la doo xeeb xéewal gi la yàlla defal ndax ñàkk doy la tamit da ngaa xeeb la yàlla defal te loolu musiba la mbokk kenn ku ne xoolal li la yàlla defal te it boo boobaa da nga sant yàlla ci li la yàlla defal waaye am na ñoo xam ne lii leen yàlla dafa lépp ba tey ñu ngi jàmbat am wér di jàmbat am am am am dund weer di jàmbat ba tey dégg nga di jàmbat rek foo toll yaa ngi jàmbat yaa ngi kii yaa ngi kii loolu boo ko dee seet ba tey am na ñoo xam daanaka seen alal la moom te loolu ëpp naa ëpp naa def kon euh, yal nañu yàlla toog te jéggal suñuy bàkkaar may ñu jikko yu jikko yu lislaam yoo xam ne dañu mën a jariñu tey ak ëllëg rabbana atina fi dunya ba wa fil axirati xasanatan wa qina azaban naar rabbana la tuzig qulubana ba'da iz hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab tawil lanaa umran saxxih lanaa badanan wa hab lanaa bushraa wa tawfiiqa yallaahu waftax lanaa kulla baabin kunta faatixahu lissaalixiina min alxayraati yallaahu warud lanaa kulla zi saabin wa zi xaramin wassiran kulla zi taasiiri yallaahu wa kammilan kulla maa nanhu wa naqsuduhu wa hab lanaa kulla maa naxtaaru yallaahu rabbanaa taqabbal minnaa innaka anta samiul aliim إبليس إذ ناديته بيا ولي أياس من إله دجا ولي إبليس إذ ناديته بيا ولي